asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu mbokk yi naa leen ziar naa leen maa leen di ñaanal jàmm te di ko sàkk ci yéen lu bëri bëri bëri bëri tey nag dañoo bëggoon togg suñu suñu ndawal bu rafet bu neex bu riche boo xam ne ànd na daanaka ak légumes yu bëri bëri bëri bëri légumes yi ñuy jot a am mooy suñu ndawal baa ngi nii benn kilo benn kilo ndawal waaw amee xool ndawal boo xam ne bëriwul graisse suñu kii yaa ngi ni suñu mm. légumes yi am nañ soble kaane salade kaane salade bu verte bi bii bu jaune bi la am na naaja am nañ euh, laaj limon kaane tëmbal am suñu tamaate suñu roof persil am suñu oignon suñu haricot vert suñu naana mant am suñu kaani sofia bii batanse la carotte baa ngi nii pomme de terre ak naajo moom lañ am ñu tamit dinañ ci boole suñu olive incha allah après ci fin bi suñu nokkos baa ngi nii eh, bu ñuy ci nokkos bi poobaru la ak euh, laurier ak xorom incha allah léegi xam naa dinañ dagg suñu euh, légumes yëpp dinañ dagg légumes yëpp incha allah bu ko defee ñoo commencé togg suñu supp togg supp supp bu neex lay nekk bu riche boo xam ne bu baax la ci yaram te bëri na ay vitamine incha allah waaw léegi xam naa dañu ñëw dagg gi yëpp bu ko defee ñu ñëwaat dellu si waat kumasa sa inyo daw. Gusto po, inshallah, grabe. Bismillah. Wa sa magay, nukos ba nyo? Ni binin nukos eh. Bino. Nukos bino. Tiro vilajam. At yo dañuy marina sa inyo, sa inyo dawal eh. Doko muso. Dañ ko yung marina pa pare. Kaya gis nyo am sa inyo kaana po sew. Am sa inyo ginger. Am kane salad bu verde oignon vert suñu laurier am suñu naana kaane feeñ bi buwaana bi sofia am suñu soble am suñu laaj am suñu persil léegi bi lii lañuy nokk dëbb ñu daal ko boole ak poobar ak xorom léegi suñu paree ñëw suñu marinade dañuy mariner suñu ndawal ba mu ba mu saf saf ñu doog ko ñu teg ko lu yàgg waaw mu toog lu yàgg ñu doog ko mën a def ñu doog ko mën a muusal incha allah waaw mën nañ ko teg ay trente minutes bu ko defee ñu teg ko mu mu après ñu muusal ko waaw ñu continuer suñu suñu supp allah rabbi léegi nag suñu nokkos baa ngi nii nañ ko ba pare macha allah waaw léegi dañ dinañ ci def euh, vinaigre bi bi di apple cider vinegar la boo bu dee tàmm ngeen sama seen bi xam ngeen ne maa ngi defar benn vinaigre fan yi maa ngi commencé woon defar benn vinaigre waaw comme ça boobu la rek benn la rek bi apple cider vinegar la ñu ko xam-xam nañ ko te dinañ ci def tuuti lu yam rek tuuti rek tuuti lañ ciy def ci suñu nokkos bi kii la extra na olive oil la huile lañuy def huile bi dañuy jël bismillah ñuy def tuuti ñu marine ya, suñu marine kii suñu nokkos bi tuuti rek parce que supp la soxlawul mu am diw ya Udah bikin Coba Sini coba Ada sini foro Menasa coba mungkin Wah Supo bemong supp moom dafa baax dafa baax ci yaram moom dama koy bëgg muy suppu ginaar muy suppu yàpp muy suppu légume kese sax suppu légume kese kese kese dafa baax ci santé baax na nga jël ko dagg sa légume yëpp daal def ko daal di ko def sa benn supp dobb sa nokkas bu am maanaa def ko ci loolu daf may neex lool may neex lool macha allah gis ngeen nokkal nokkal moom la léegi dañuy jël ci nokkot bi ñu jaal di mariner suñu ndawal incha allah ndawal doom ko bàyyi ko fa ba ay quinze minutes wala trente minutes nga xam ne marinade bi da koy dugg lool nga doog a muusal nag suñu marinade bi si la Marinisin yung lobo. Masyari. Ay, marinan. Ay, madoli. Vinegar. apa sa air, vinegar. Madoli. dañ koy bàyyi mu toog ba ay trente minutes yooyu incha allah wala quinze minutes ba defee ñu daal di teg léegi nag suñu ndawal baa ngi nii marine nen ko bàyyi na mu toog lu xaw a yàgg tuuti léegi dañ koy teg ñu commencé ñu dagg suñuy légumes yëpp incha allah def lépp waaw léegi dañ koy teg noonu Mamakai tak matak ciputi. Ay tabu sitro. Tabu sitro ay. Dati am mana lol. Dati sala lol sa. Masya Allah. Mungkin tak non. Dali ko. Tak tigadi. Ang bahay mo. Mudaf ay miram ba si kanam. Masya Allah. léegi nag nañ xool suñu supp bi mu ngi nii na allah jadi tuh singkat macet. Tuh yang macet. Jadi dañuy dindi limon yi banyak bañ mu weex ci biir moo tax mu dindi limon yi carrément moom li mu war a def def na musim ci banyak pare bukan xool xam ne ndawal bi dem muusal ko ba ñor lagi bu perum togg ba ba mu ñor ñor yooyu non léegi noppat bi ñu dese woon moo nekk nii nañ ko ci def maa ngi ci bruit bi de donc maa ngi ci léegi dañuy def suñu ndox nag dañuy ñëw suñu ñuy defee ba pare incha allah ñu def suñu légumes yi mel ni jus ndawal li mooy gé moo génn ni jus moo génn ni léegi dañuy ñëw seen def ndox bu yem gis ngeen doore ci dara Гисмендорена, Дедепочита, Ромахана. На какие? Так на Лекимир. Supaya bayini batan bi soble. Tomate bayini arigo vert bi karot. ñu am suñu naajo am pomme de terre bi kaane bi dañ koy tombal da koy jox guumam tam bu neex bi pataas bi la oignon vert bi kaane salade bu verte bi bii bu zone bi la mooy suñu suñu suñu kii incha allah léegi dañuy dañ koy ciy def benn yoon bu ko defee nga xam ne du ñor ñor yu ëpp yooyu noon wala wala ñu jiiteel soble bi bismillah def suñu tomate def batanse la pomme terbi si cane di arco sovi bacaps supaya, supari yaudah ya kalau su suppu noo bëgg mu toll say légumes noonu noonu la ñuy toll bu la neexee tamit boo amul légumes yi yëpp tamit ba tey mën nga jël yi nga am rek boo demee tamit ba mënumtu daat boo demee tamit ba nga xam ne sa légumes yi am nga yu ëpp yi tamit ba tey yëpp mën na ci dem bu dee supp bu ndaw ngay def bu tuuti ngay def bu dee li par exemple liibaru ndawar ngay def wala liibar ak gannaaw liibar ça dépend yow sa supp noo bëgg mu rek noonu ngay def say fii légume wala bu la neexee ma nga def tuuti ndawal légume yu bëri bëri moom loo ci am rek du bëri xoolal masalah dan kayak yang dalam saya kemudian saya akhirat légume bi nii comme ndawal li muusal ko ba mu ñor fi nekk di xaar xaar yu metti yooyu noonu ndawal dañuy bañ mu ñor yem rek bu ñëwee ba doore rek incha allah ba ñu ñëw ci ñu ñëwaat ci kii bi ñu xool bu ñoree incha allah ñu yàq suñ supp waaw xam naa si kanam ñu ñëw xool suñu supp nu mu mel wala couleur rek def ci rafet macha allah te te te tamit loo loo ci xamul vitamine yu ne yu nekk am na ci vitamine yu nekk am na ci ci ci kii ci légumes yi légume moom dafa dafa baax bari ay vitamine macha allah boo ci laal rek daanaka moom <laughs> mook bee benn la lépp a baax macha allah ndawal tamit wax noppi te lii xam nga ne lii amul dëwlin amul cholestérol rek ndax olive euh, huile d'olive bi moom laa jël rek si sa nee sama ko boobu kese moom moo nekk lu dul loo xam ne ndawal li moom moo gën a jus euh, jus ndawal bi nekk ci biir moom kese moom ngeen di seen nii waaye amul benn huile xanaa loo xam ne kudd boobu nga xam ne moom laa mariné sama sama sama nokkos waaw xam naa léegi kaname bu ñoree incha allah ñoo xool suñu supp ñu yàq wuu <laughs> suñu supp baa ngi nii macha allah macha allah macha allah <laughs> rafet na ñaar na Dona. Masya Allah. Ini kan senyum. Orang ya. Senyum suku. Masya Allah. Sudah pernah. Ya Allah. Masya Allah. Pequeño ya senyum suku Masya Allah. Eh, suku bangunin yang kau kena. Bismillah.

mango yakal sama frère guys, mi nek ci Italie mango ya ñaanal jamm di ñaama ñaanal bëpp doomu adama bu nek fofu mango yakal gaay yëpp allah su bi jaar na yoon amna mana safet na sama xarit yi ci gam yi yëpp yakal na le ko ñoom Aysatu Ba ñoom Adama jallo Kumba jall ñoom ñëpp sama amir hadi manka mango yakam sama kali dia, ñoom sa fiyete jaalo kii da caam eh, awa jóob ma limee damay ya yéen yëpp laa ya ya pour allah hmm, noonu masya allah hmm. jaar na mangden dini ngi leen di bon appétit à tous allah ci suppu bi ma ñaan leen ngeen abonné rek ci chaîne bi bu ko defee saa yi ñu dugalee vidéo incha allah di ngeen bokk ci ñu koy jëkk a jot incha allah ngeen abonné rek jàppale seen seen sœur seen sista seen xarit seen doomu seen lépp incha allah asalaamaaleykum wa rahmatullah ba beneen yoon